alors Yande maa ngi leen di ziar. nga gisee projection premier épisode xanaa am ci contentement rek am ci contentement bu bari ndax euh, tàmm nañ yi ndax lu mu ndaw ndaw yàgg nañoo ak Evenprod xanaa di leen ñaanal rek ci leen wax euh, encore une fois félicitations liggéey bu rafet na. ci am rôle wala. waaw am naa ci rôle. bon rôle Muso. Mousso bon ci beneen vie bi moo nekk jabaru coach mais ci beneen vie bi aussi moom moo nekk jabaru euh, euh, comment dirais-je encore euh, général. kon bii seetoo ci. <laughs> pétaawo <laughs> alors ci ci ci mars tamit nga am ci rôle boo ci joué boo xam ne bu am solo la ci lañ la xàmmee bu baax boo xam ne ñëpp dañ ko apprécier. waa rôle boobu ni ma koy waxee rek tout le temps Even Prod la xëy na ñoom tamit gis nañ dara ci man ñu ne ah kii kat il faut que ñu xool nan la ñu mën a liggéey ak moom waaye mu nekk rôle boo xamante ne bu extraordinaire la euh, euh, ñëpp nag nangul nangul ma ko di ci remercier tamit ñëpp àdduna beeg ñëpp daal franchement parce que nangu nañu personnage bi début bi nag xawoon nañ ko ragal mais. ba tey dañ la ba sa yuuxu ya ma wax la début bi lañ ma ragaloon mais après dañ ma yërëm. yoo xam peut-être affaire rawaan yi la <laughs> rab yi la rek. mais rôle bi nga réussir ko après yan retour nga ci am sénégalais yi luñ la ci. bon ay retour yu yu yu nice rek ñu ragal la waaw début bi début bi moom daan nañ ma daw comme ni ma ko waxee léegi rek mais mais mais mais mu nekk loo xamante ni contentement rek laa ciy am comme ni ma ko waxee léegi ndax tey fu nekk ngay dégg jëlee appel ku nekk di la wax ñu bari di la wax ni lii dama ko dund donc euh, dafa nekk lu yéeme nekk tamit liggéey bu bu am solo boo xamante ni Evenprod def nañ ko dafa tamit jàpp ci ak ñi nga xamante ni yor nañ ma ci cinéma. nag gis naa si ñuul de tey ba mu gis naa per bu ñuul. waaw mais Yandé bëtam da doon ñuul bu bu rawaan yi di ñëw rek lay weex. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal di la xaar ci bëtu ñu xooloo xaar leen. Hmm. xaar leen nag ñu ngi mërsa du gën a tàng. yaakaaruma ko Vautour man nag mërsa laa bëgg mooy sama film mais ragal naa ni Vautour non beneen affaire la high level la. jeex na merci beaucoup à